ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بوكي تايلا التنه juróom benn fan ci weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa dëppoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru awril ci atum ñaari junni ak nit ak benn juróom benni fan bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la mënees na cee watu wala daloo ci wala takk ci ab sëy wala yeggale ko ca wala sanc ci kër wala tàmbali ca dara ak yu mel na ñoom bu dee bisu ba altine bi liñ ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo ñaanu bis bi maa ngi muslu ci waati yàlla yu mat ya ci ayu lépp loo xam ne bind na ko audu bi kalimaatillahi taammaati min charri maa xalaq xaddiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jox aji woor ndogu am nga yool bu toll ne ab yoolam te du wàññi dara ci yoolub aji woor ja xaddis bi at tirmidi moo ko nettali. مدى سلامك بخير ود لمن ما